est-ce que aussi nguur gi amul la responsabilité aussi de protéger aussi l'assemblée de parce que yéen aussi vous avez fait l'erreur en peut-être loolu lay bañaat xëy na. non dem lay jubbanti nga xaar <coughs> nga baal en doon erreur en le président Abdoulaye Wade moo màggal démocratie. mais vous l'avez regretté. Le... non non non nous l'avons pas regretté si s'il fallait refaire aujourd'hui la même chose dañ koy defar xam hmm. démocratie la ñu gëm ñun dañu xeex 26 ans ñaar fukki at ak benn yoon. pour suñ ak ak yelleef ñu bañ ko salfaañee président Ablaye waat le 23 juin bi ngay wax parce que mooy mooy référence bi. Mm-hmm. dafa wax le ministre de l'intérieur daf communiquer à la rajo et aux différentes télévisions ñu ni ku bëgg ñëw assemblée nationale seetaan si votu projet de loi boobule na ñëw ñi nga xamante dañ ànd ak projet de loi nañu féete boor bi ñi nga xamante ni dañu contre loi bi nañu féete boor bi kenn ku nekk manifester pacifiquement. pacifiquement ba pare ba pare dafa nag ba pare ñu demander aux forces de l'ordre bu ñu laal kenn bu ñu jegee kenn mais xam nga bu fekkoon président Abdoulaye Wade defoon dafa ni Macky Sall jële ko poste meeting bari ko ak ay euh, camion char euh, char ak ay char de combat ak i ak i barrière police ba kenn du exit Dakar plateau bay egg Assemblée mais bu ñu ko defoon noonu bi ñu wax du am. mais bu fekkoon ne xam. le 19 bu fekkoon ne xam na li ko si fekk peut-être du ko def. maa ngi ñëw état du Sénégal aussi. maa ngi ñëw le avril bi ñuy wotee. euh, la loi. sur le parrainage sur le parrainage. ñun ñi ak man mi ak ñeneen ñu bëri yéen ñu jàppoon bu ñu police fanaan loo ñu fa ba fajar mais parce que bi ñu doon dem assemblée nationale pour xeex loi bi tey jii il est avéré que la loi n'est pas bonne ba CEDEAO jox nañu dëgg neen cette loi là nañ ko dindi daal le corpus judiciaire de notre de notre pays ñu xaar état bi nag ba xam nu mu ci def donc c'est pour dire simplement que li nga xamante ni da nga koy def te nga jëmi askan wi ndax terrorisme. kenn werantu ni lu bon la kenn werantu ni lu ñu war a xeex la kooku ñun ñëpp d'accord nañ si mais nañ si waxtaane waaye également suñu àq ak su suñu yelleef également c'est des droits fondamentaux yoo xamante ni du ñu nangu ku ko fi dindi wala ku ko salfaañe mais monsieur Ba bu fekkee da ngeen a da ngeen a bëgg a manifester pacifiquement mm-hmm. amu leen benn intention yàqu comme ce qui s'est passé le mois de mars mm-hmm. alors pourquoi ngeen bëgg a ragal loi bi bu fekkee yéen da ngeen a bëgg a manifester pacifiquement état wax ne bu fekkee da ngeen def ay parce que dama jàpp ni yéen peut-être leen si dérange mooy peut-être responsabilité morale bi ngeen si am bu fekkee am na ay cas aussi état am na sañ sañu nag ne li xewoon mois de mars par exemple dootu fi am. bu fekkente ni yow sa télévision bi dama fi def man assan Ba responsable du parti démocratique sénégal un communiqué. moo mm-hmm. woote à un meeting. wala à une conférence wala à une quelconque activité. Mm-hmm. ngeen relayer ko activité boobu am mu am ay ay ay quelques écarts. mais sa responsable nee nañu yow mii nga xamante ni yaa koy visé même vous de la presse vous n'êtes pas dañ laa na dañ lay qualifier comme étant un acte terroriste c'est ça qui est dangereux justement dans la loi là subtilité boobu lañ duggal ci biir dëxi ko ci biir ñun ñu gis ko nag ñu segg ko génne ko def conférence de presse la veille alerter opinion publique nationale internationale wax naa léegi euh, les associations de droits de l'homme ñoom ñëpp ay rajo ki ay amnistie ñëpp ak plus d'une trentaine d'organisations ñoom ñu dañu def déclaration demande au président la de rapporter cette loi là maanaam mu bañ ko valider. d'accord loolu mu bañ ko valider véritablement donc loolu dafay wane ni rek bu fekkonte ni ñun opposition rek ñoo gis loolu. jàmbur yi gisuñu ko kon ñu ne ah ñii day dañu bëgg nguur gi rek ñii day nangam nangam comme niñ tàmm di wax mais dafa am ay jàmbur ak ay professeurs agrégés de droit. chaque jour yaa ngi leen gis ci télé bi chaque jour yaa ngi gis ñuy bind ci journaux yi la presse écrite di dénoncer ak di wax donc vraiment c'est pour dire que euh, bu defee forcing mmh. la loi est une loi on doit la respecter mais cette loi là elle sera mal euh, pour ñu exercer ko ay jafe-jafe lay doon